Maguette Wade euh, maa ngi lay nuyu. waa maa ngi lay fay soxna si di la ziare bu baax. Mhm. Maguette euh, Wade nga nekk euh, njiitu mouvement patriotique pour la citoyenneté et le développement euh, Sénégal rek ñu lay laaj naka nga gisee la xew ca assemblée nationale gannaaw projet de loi bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Diakhar fay dugaloon na ko pour ñu dissoudre HCCT ak conseil économique social environnemental Benno Bokk Yaakaar tax ba assemblée bi daal di koy rejeter ban jàngat nga am ca la xew foofu. waaw jàngat bi ma si njëkkaam mooy euh, benn ba léegi mi ngi continuer di xeex euh, xeex boo xam ne nag euh, guddal jële la waaye jàpp naa ne tamit mënuloon lu dul plénière bi li ñu décidé loolu rek moo mënoon am parce que la commission des droits des lois loolu la décidé woon la veille donc ñoom mënuñoo teree bañ plénière bi am ndax plénière bi dafa am indépendance am waaye bañ ko defee pare jàngat bi ma si a def li jaaxal mooy député PDS ba bokk Sofone ba ndaxte ñoom ña fa ëpp dañoo ànd si yeewu askan bi kon loolu lu ja beneen jàngat la boo xam ne ma jàpp ne xanaa président dafa jàpp ne jaaree conseil constitutionnel la gëm kon gars yi dañoo ñëw nii rek parce que wax na ko ba pare gaa yi ñëw mais bi mu gëm daal mooy dina def dissolution bi ndaxte nag politique dafa laaj stratégie. Mm-hmm. Euh, ndax ñetti député ñetti député ah mënoon nañ koo mën a liggéeyante bu ñëwee jàll waaye comme dañoo bàyyi mu demee noonu d'une façon naturelle politique nag. moom boobu mel ne noonu dana xaw a métti lool lool lool sa bor ndax ñetti député daal man jàpp naa ne ah buñ ko politikoon war nañ koo mën a am ba affaire bi liñ bëgg a ndax ñaari institutions yi ñuy wote amuluñu njëriñ askan bi njëriñ. Hmm. Euh, dugal say nit ak say am di jàmm. te dëkk bu tolloo si xiif mar ak rafle nag jàpp naa ne façon instruction yi dañ ko war a ndax amul benn njëriñ hmm. ndaxte loolu mën naa dem si hôpital yi mën naa dem si sécurité mën naa dem si njàng hmm. mais am lu euh, ministre euh, Bala Moussa Fofana wax xawatee xelu euh, sénégalais yi moom mooy suñu supprimer HCCT dinañ teg yeneen huit pôles yoo xam ni peut-être day jéem prendre la place du HCCT kon nag nit ne mënoo supprimer benn institution tomb budgétivore tegaat euh, benn yeneen kuréel yoo xam ne daa nga fa dugal ay euh, euh, nit fay leen aussi maanaam daal xel daf ko nanguwul naka nga gisee loolu xam nga bu ñu waxee rupture wax changement dafa am loo xam ne xel da koy nangu mënuñu ne lii baaxul ndax dafay yàq amul benn njëriñ y a trop d'institutions au Sénégal qui ne fonctionnent avec un budget colossal te amulool benn njëriñ askan bi mënuñ koo dindi di andiwaat leneen loolu xel mënu ko nangu booñ koy dindi dindi nañ ko maintenant li am ba am mooy dañ wax la rationalisation des dépenses de l'État loolu nag moom buñ ko tegee dañuy fàttali ne sax oto yu cher sax war nañoo mën a def na Sankara defoon def ko vente aux enchères dugal ko si institutions yi nga xam ne dañoo am problème comme ni mu waxee ne nañ wàññi soixante seize milliards yi ñuy fay administration bureau boo dugg te ku si nekk ku nag fii Sénégal la xamante nañ nag nekk yàq la goo xam ne dafa dëppoowul ak li askan bi soxla jamono ñu tol nii suñ bëggee defar nag dañuy dindi lii parce que baaxul amul njëriñ xaalis boobu xam nga tey fam xaj hôpital nee naa la tey da ngay bam bëgg a faju doo am loo fajoo hôpital yi dañoo fees ba tey fi mu nekk nii Abbas Ndaw keroog ngay dem yóbbu malade ñu ne la mënuñ koo jël saali fees nañ dëkk bu tolloo foofu doo jël ay treize milliards ay neuf milliards dix sept di ko yàq kon créé waat beneen institution buy niroog moom amul sens le ministre ba war a def le directeur ba mën a def nañ sa yem point man loolu laa gëm d' accord euh, tey jii Maguette Wade euh, kon yow da nga d' accord ñu supprimer euh, HCCT conseil économique social et environnemental euh, aussi euh, naka nga gisee bi mbir mi pare ñëpp fi ñu ni li ñuy wax mooy tas bu ñu war a tas assemblée national te aussi bu ñu ko tasee dafa am ay conséquences euh, jiitu réew mi foog mu daal de gouverner par ordonnance en certain temps. est-ce que d'accord nga ñu tas assemblée bi lan nga xalaat si loolu. mais assemblée bi euh, dañ dañ ko war a tas gis nga ba bu dugaloon na sax ay ñaari institutions yooyu conseil économique social environnemental ak HCT boobu noonu. assemblée bi ça ne reflète par la mentalité et l'aspiration du peuple sénégalais assemblée bi si boppam dañ ko war a tas def réforme. dinaa la wax ne la man dama bokk si ñuy initier ñu def réforme législative boo xam ne la liste nationale dañ ko war a supprimer def ay élection à deux tours un député day dëkk si koñ bi ku romb mu xam ko jur xam ko yaayam kooku dana mën a défendre intérêt goxam mais député boo xam ne comme ñoom Abdou Mbow ay ñoom far Farba Senghor ni ñuy jàll Farba Ngom ni ñuy jàllee c'est le président moo leen def ci liste nationale ñu jàll lool daa war a dakk daa war a deñ nous voulons une dañuy tardel jël bi rek parce que tey motion de censure bi liñ ci wax sur cent soixante cinq députés di sept rek mën nañ dix sept rek buñ ko assuré rek loolu loolu laa wax mën nañoo daane gouvernement bi hmm. waaw buñ daanee gouvernement bi mais le président am na possibilité yoon moo ko ko may reconduire le gouvernement d'Ousmane Sonko et de tous ses ministres hmm. kon su boobaa eh, eh, ñoom dañuy dissolution bi via constitutionnel mooy kon yéexal jëli la rek waaye nag yéexal jëlle bi li ma si naqadi mooy ñoom li rapport yi jotagum wane da ngay foog ne àndoon ak seen xel saax saaxe beeg sabote bi waroon nañ am kersa ak sutura dimbale askan bi coono bi nekk si ñoom te dañagul di gën a yokk mais ñu ñu ñu ñu bàyyi askan bi xel parce que askan bi sonn nañ xeeti sonn goo xam ne euh, gis criminalité bi gis nga sax la récurrence de la criminalité nga foog lan moo ko la pauvreté elle est une pauvreté extrême nit ñi duñ am luñ def y a l'oisiveté y a le chômage euh, nit ñaa ngi dem ci géej gi di di di xaru euh, lool yëpp lan moo ko andi gouvernement yu bon gestion politique bu bon moo ko andi du leneen au moment où ngay dawal oto yu jar quatre-vingts millions oto yu jar cinquante millions parce que nii bu ñu xëyee duñ lekk duñu reer hôpital yi boo demee dafa fees dell bay tuuru ñu naan la amuñ place nit ñëw koo xam ne warata nekk ci biir dañ hôpital la war a nekk internet médecin di ko xool ñu ne la amul place buñ ko def parce que lépp dafa fees cela veut dire aussi tamit foofu sama xel day dem ci Tahirou Sarr il a parfaitement raison aujourd'hui ce qui se fait dans ce pays il faut ñu xoolaat ko defaraat sans bopp a la gënal du bañ la envahissement la Sénégalais yi matuñ quinze millions rapport bi ANSD joxe man doow ma ko on est par la sous-région et dans cette sous-région am na si pays yoo xam ne tey ku si mel ne ay Sierra Leone ay Libéria xoolal jëlee fawoon marche ngi fees dëkk bi Libériens yi vous trouvez que ni dëkk boobu mën naa am sécurité vous pensez que dëkk dana mel noonu ñu yore ay institutions yoo xam ne amul lu jëriñ askan bi di ko conserver déedéet assemblée bi dinañ ko tas dañuy yéexal jël dinañ ko tas dinañ recours yoral gouvernement bi loolu nag lay demee hmm. waaye nag dañ gën a sonal askan bi Euh, mais député yu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi reprocher Ousmane Sonko le fait que ba léegi nanguwul dem ci assemblée nationale def déclaration de politique générale moonte day nangu na fa yabal ay ministre am comme ni mu yabalee démb euh, ministre ba ngir rek ñu daal di euh, jébbal pencum ndaw réew mi projet de loi bu Bassirou Diomaye fay Faye ngi se loolu waaw ah, xam nga jamono am na fi Ousmane taxaw di wax ñoom ñoom ñu ñoom ñoom ñu génn mhm. bi nekk ci ñoom te dama lay wax ne la euh, cette formule de faire la politique xamul tax mu ñun ñu jeunes ñu à notre structure on dit que ne il faut que ñu defar une éducation citoyenne parce que la politique bi ñi ko sénégalais yi defee jamono bii du boobu mooy politique on ne pas des ennemis nous ne sommes que des adversaires waaye tey noonoo gi dafa yegg foo xam ne ñoom il n'accepte pas Ousmane Sonko y a une haine viscérale envers Ousmane loolu nag ñàkk taalibe la ñàkk ngëm-ngëm la ñàkk nag bëgg sa askan tax damaa jàpp ne ñu dem élection mu gañe ñu xool fi dëkk bi toll ak danger yi ñuy gëte yëpp waroon nañoo mën a toog waxtaan ndaxte man damaa gëm waxtaan ci démocratie je l'ai toujours dit le dialogue est très important kon tey su Ousmane ñëwul ah ñoom amuñ dañu reproché Ousmane sur le plan de la moralité ndax Macky daf leen doon defloo ñuy def di dindi ñoom ñoo dem ba fàtte dispositif bu tax Ousmane war a ñëw ñoom ñoo ko fàtte de lan la ko def parce que seen ay intérêt rek pourtant bi biñ leen waxee ne kaay leen jëli oto kaay leen jëli ndékki kaay leen dem dem defi séminaire dem nañ de parce que sont là-bas di lekk lekk yu neex di naan naan yu neex di fayee pour salaire yu bëri di taal suñu essence te amuluñu benn njëriñ dispositif noo koy fàtte Ousmane bu ñëw il est en parfaite harmonie avec son président qui pense que ne conseil constitutionnel la gëm fa lay jaaree pour la dissolution de l'assemblée ndaxte jàpp naa kat bu fekkoon ne dafa gëm ne assemblée a jàll. loi de commission ne du rejeté ko au départ buñ gëmoon na mën na jaar foofu danañ politique ndax trois députés warul leen mën a te benn député ba nag PDS la bokk monsieur Diouf boobu noonu mu nekk nag tamit ndànkat bu xaw a doy waar ndax PDS. Hmm. ma nga yeewi. Hmm. wala PDS ma nga APR doo xam fan la si. parce que bu fekkee ne tey ñoom bu ñuy réunion am ñu fa jógee dem si seen ay région seen livre bu ñu demee assemblée am ku rocceeku ñëw ànd ak ñoom ah vraiment sa ça pose problème. Hmm. Euh, ñu ma laajar la si beneen ponk bu am solo Maguette vad euh, aussi euh, jafe jafe-jafe yi nga xamante ni fiñ ñu toll ni moom la yi di dund bari na ñu si doon xaar bu baax a baax président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey jii bataille politique bi ñëw taxaw mel ni luy indi blocage institutionnel naka la ci président mën a génne ba defal sénégalais lu ñu bëgg moom mooy saafara seeni jafe-jafe waa xam nga saafara jafe-jafe yi buñ la joxee ne la dañoo bëgg nga saafara si jafe-jafe leng yi dafay mën nga téye ko sa loxo mën ko mën koo def léegi nag leng yooyu nag pour mu mën moo tax président aussi nelawul jàpp na ne nam ko jaaree pour mën a liggéey liggéey bu gaaw génne nit ñi si coono bi mooy conseil constitutionnel moo tax moom mu jaaree foofu demande bañ wax ko ko mën nga ko dissoudre te euh, sel bu jotee mën nga ko dissoudre bu ko dissoudre nag ba pare. Ousmane nee na projet bi pare na mais su boobaa dana mën a dawal bu dawalee nag dans cinq mois six mois ah danañ xam ndax cin bu naree neex bu baxee xeeñ su boobaa nag danañ xam ne Diomaye kat fal nañ ko jox nañ ko léegi yëpp léegi nag bu neexee moom la bu naqadee moom la. Euh, beneen ponk bu am solo politique de redressement fiscal bi nga xam ni régime u Diomaye bi moom la teg mu jur coow lu bare bari entreprise yu bari nekk ci ay euh, jafe-jafe am na sax ñu bari ñuy ñàkk seen liggéey naka nga gisee euh, politique de redressement fiscal boo xam ne dafa nar dafay créer ay chômeurs au lieu que mu daal di créer ay emploi am nga journaliste moom comme yàlla la dafa leen nattu film lañ yore ak Lamine ñoom ñi ngi yuux waaye am na ñoo xam ne dañoo mënula yuux mais redressement fiscal bi tebul kenn ñëpp la laal amul kenn ku redressement fiscal bi demul ndaxte nag ñun dañoo amul culture yi fay impôt ngay toog doo fay moo tax li ma jaaxal sax dama nekkoon bu fi i nekkoon kon ni nii kon coow yi impôt doo ko fi dégg kon te kenn du fay Macky bi mu fi nekkee ba léegi dégg ko fi wax wax coow impôt kon fay lu tax dañ war a fay maintenant l' aussi dafa war am benn stratégie bu ko permettre mooy sauvegarder les emplois parce que moom dafa ñëw pour créer des emplois kon bu fi fekkee ay emplois dafa war a def le tout ba sauvegarder ko maintenant certains patrons de presse dañu bugg euh, à travers cela mener des pressions ci euh, état bi nangam mënuñoo fay nangam non ku si yoree même un milliard da ngay wax nan lañ la koy étaler nga fay ko liñ la teg aussi bu fekkee ne gëm nga ne liñ la teg ëpp na waroo ko fay mais nga dem si yoon yoon ati am na ñoo xam ne tey mais pourtant biñ leen tegee luñ jàpp ne lii dafa ëpp mais dañ dem tribunal kuñ fi ja teg loo mën taatan ndaw dem waxtaan tribunal mais nag xëy bi moom mënta ñàkk l'état aussi dafa war a góorgóorlu ba xool nu muy def pour sauver vraiment les meubles parce que nag les emplois vraiment ñàkk ko tamit vraiment nekkul li gën d'accord euh, kon nag ñu ngi lay remercier bu baax a baax Maguette Wade ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. waaw maa ngi leen di delloo remercier di lancer un appel rek à la population sénégalaise. Mm. et aux hommes politiques que ñu xam ne affaire bi métti na. Euh, lu ñu gën a tardel ñii pour ñu mën a dem liggéey rek day gën a métti si askan bi ndaxte jaaxle nañ euh, sonn nañ te dañu war a dindi coono bu fi nekk loolu daal maa ngi leen ko te ñuy privilégier le dialogue waxtaan waxtaan daal mooy régler mbir yi waxtaan daal moo gën xaatar xaatari def élément ku nekk di jaay ne ma am fit te boo sibiroo rek xam ne amoo fit. nañ defar Sénégal si jàmm ak teranga fexe ba cohésion nationale bi ndax man dama gëm ni amul benn loi bu ko supérieur nañ fexe daal ba cohésion nationale bi buñ ko yàq te ñu nekk mag nekk ay kilifa di wax wax yoo xam ne dana nopp garmi danañ ko mën a dégg mag mu baax du wax wax bu ñaaw mag mu baax du wax luy tàqale ay nit Sénégal benn bopp la nañu fexe di wax wax bu baax na nañu fexe ba tàq mu musiba ak bala ku def nag loo war a def la sa yoon war a def nañ ko def sa amin ba gën a rafet mais buñ essayé humilier kenn bu mu nekk justice des vainqueurs na nekk jàmm ak salaam ñoom it ñu xam ne dañ leen a jox Sénégal pour ñu defar ko ñu defar ko si anam bu rafet fépp fu doomu mu a nekk am xam-xam rek pas-pas bi jiitu si ñu jox la bagage yi nga liggéey Sénégal jëm sa kanam. Maguette may fàttali yow yaa jiite mouvement patriotique pour la citoyenneté et le développement Sénégal rek ñu ngi lay remercier bu baax a baax. maa ngi lay remercier bu baax soxna Moreau a baax.